jërë ngeen jëf coowal mbës mi yoon bësaat na ko ba talaata ji di ñëw l'observateur nañu procès bu suyul beauté bi ñu waroon a amal démb ca chambre criminelle bu tribunalum Dakar layo bi dàq nañu ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai ci audience spéciale ca la ñu ko bu dee Ousmane Sonko xanduloon ci tribunal ba kii di Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye ak docteur Alfouseyni Gaye ñoom ñoo nga fa woon àndoon ak seeni avocat juge bi di Hippolyte Ndeye l'observateur mu njëkk ba wax ne bi ñu nee suba la procès ba maanaam ci altine ji procureur bi dafa convoqué woon Ndeye te code pénal bi ci article daf ne audition bu ni mel waree su ko def lu yées ñetti fan laata procès bi procès boobee Sud Quotidien nee nañu talaata jii di ñëw ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mee ci ko war a lii Quotidien di laaj ndax fii ak dëgg gi dina feeñ ci mbiri Sud Bote yi bu ko defee askanu Sénégal xam lan moo ca xew dëgg chambre criminelle dafa gis rëq-rëq yu am ci enrôlement bu dossier bi maître Alaaji Diouf di avocat bu Adji ñu ci yéenekaay bi dafa am ñoo xam ne dañuy daw procès bi di nëbbatoo ko làqatu ndax ragal a jàkkaarloo ak Adji bu dee Ousmane Sonko ko tax di wax moom Ousmane Sonko kenn ci avocat di maître Youssou Camara mi ngi wax ci journal Les Échos ne seenu client di Ousmane Sonko bu ñu ko joxee ab convocation ba mu jot ko danañ ko conseiller ngir mu ñëw tribunal ñëw gi nag maître Youssou Camara ne mi ngi dépendre ci moom day mbili gi di Ousmane Sonko beneen avocat Ousmane Sonko di maître Ciré Clédor Ly ci xët mu njëkk Walf ko dem jàppi fa journal Tribune mi tuddee yëf yi comité judiciaire mi ngi ñuy xibaar ne wax nañu ne Ousmane Sonko nangu naa dem tribunal ngir moytu deret tuuru ci réew mi Vox Populi nañu layoo bi lambo ay mbiri saay-saay procès Salas talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mee ci la ko war a àtte coowal viol gi Le Témoin nee nañu viol du ko gën seer ci république bu Sénégal ne yi fi yàqu bari na yàqu-yàqu yu mu ci réew mi jéggi na dayo lu jege ñaar fukki doomu aadama yéenekaay bi nee nañu kenn xamul nu mu toll fi ñu toll tembe libération mi ngi ñuy xamal ne lang waa Pastef yi ñuy teg loxo lang gaa ngay gën yokk ko ne ginnaaw ay responsable parti Pastef ci Louga yu ñu jàpp ginnaaw activiste bii di Ousmane Sarr Mati Sarr ñang dib journaliste waa sûreté urbaine nga ko ko appel à l'insurrection injure publique offense au chef de l'État ak outrage à magistrat journal bi nee nañu yi mooy tuuma yi ñu koy toppee Modou Ndiaye borom Bambey TV coordonnateur communal Pastef na ñu yoon teg na loxo ki ñu jàpp ne moo ko def ab marchand ambulant la bu ñu naan MS juddoo ci Mbour di doom ci Souleymane ak Khadikan ca quartier Pikine ca Ndar fa la dëkk yéenekaay bi nañu ba ñu koy jàpp fekk nañu ci moom ay cocktail molotov yu bari dépôt Dakar dem dikk bu Kër Massar bi ñu taaloon it source nee nañu ñi def lu ni mel gendarmerie bu Kër Massar jàpp na juróom benn ci ñoom ñun nañu dellu ci l'observateur xool yi fa waxtaan lay séq ak borom FSD/BJ di Cheikh Bamba Dièye dialogue bu président Macky Sall woote Cheikh Bamba nee na ba fi nekk ni ay naxay la gën nirool li leen tax a génn ci coalition Yewwi Askan mu ne dañoo dem ba gis ci ay doxalin yu dëppwul ak démocratie wax na it ne politique ak ni ñu koy doxalee léegi ci Sénégal dafa mel ne ndajam dof saaganteeg waxante lu ñaaw moo ci ëpp lu ëpp tuur duudu moo ko wax yëral xët mu njëkk direct news li mu bëgg seenu dogu ci défendre république bi le quotidien nañu ñiy bañ a dégg waxi candidature bi président Macky di waa f ministre Doudou indi na moom it s ngir jàmmaarloo ak ñoom l'observateur nañu convergence des démocrates pour la sauvegarde de la république mooy s président bu coalition dogu pour le grand Sénégal di Doudou ministre des transports aériens moo ko lancé ngir ànd ak ñi ci mouvance présidentielle bi ngir ñu défendre candidature bu Macky miné woon xalifa bu Ndiassane l'observateur le quotidien témoigne soleil national enquête sud du quotidien turbine l'info vox populi bés bi le jour ñoom ñëpp xëyati si ba dañu xamal it ne kilifa gu màgg gi di cheikh bu Sidi Maxtar Kunta moo ko wutu ci jal bi mooy léegi xalifa général bu Ndiassane